Mamadou Mohamed Ndiaye jërë ngeen jëf Pape Mamadou Seck ma évadé ca pavillon spécial te ñu koy wër mi ngi ci yéenekaay yu bari ñu xëyandool bi l'observateur mi ngi ñuy fàttali ne Pape Mamadou Seck ab agent la bu doon liggéey ci impôt domaine ñi ngi ko jàppoon keroog fukki fan ak juróom benn ci weeru soin ca Grand Médine ay nit ngànnaay ki jumtuwaay ngir ñu salfaañe dëkk bi menuisier métallique ba ñu jàppoon ca coow le di buuna ba moo ko taxaloon ci yëf yi moo ne woon enquêteurs yi Pape Mamadou Seck moo ko commandé woon ay ers ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru soin ci lañ ko mandat dépôt woon jël ko yóbbu ca kaso bu Rebeuss nee nañu ci kuréel gi ñu naan force spéciale ci la bokk jàngoro ju mu doon soo xalee te ñu jële woon ko ca bu Rebeuss yóbbu ko ceeb avion spécial bu hôpital Aristide Le Dantec foofee fa la rëcce ak rëcce moom Pape Mamadou Seck l'observateur seetlu na ci ay mbir yu bari yu teyum xel ndax nee nañu li ko jiitu gisoon nañu ci réseaux sociaux yi ñu bind ne Pape Mamadou Seck dafa faatu Guy Marius Sagna bindoon na ci page Facebook nit ñi régime Macky Sall jàpp jàppe leen ay nit ñu dangereux ne ñoo sos force spéciale yi am na kenn ci ñoom koo xam ne dafa bañ a lekk ba laati ci wax ji moo di communiqué bu gàtt bi administration pénitentiaire gi def ki ñu ne moo def ba tax ñu koy ŋawta ŋawteeka mbambu ci réew mi di Pape Mamadou Seck sur soi mi ngi ñuy wax yu bari ci moom li mu séq ak Ousmane Sonko Pastefam ci parti Pastef ak ndombay tànk yi moo amewoon ci parti bi journal bi dem ci ba dañu xamal ne moom Pape Mamadou Seck moo njëkk yóbbu Ousmane Sonko ca Daaru Muxti gëmu dëkk moo ne woon nit responsable massification opération spéciale fa la évadé soleil national xëy ñu baaxe évasion bu Pape Mamadou Seck beeg na mu demee ak fa mu jaar bërëcc bi muy jàppal tànk di parti Pastef njiitam Ousmane Sonko moo nekk ci xët mu njëkk journal L'Info yéenekaay bi dañuy wax ne la mu fi waxoon moom Ousmane ba taxoon ñu di ko mbambu ci réew mi ka ngawte di Macky Sall bëggul Casamance bëggul waa Casamance Ousmane Sonko nee na waxam joojee tey la ko gën a wax te du ko dundi ba woon keroog ak président en exercice bu CEDEAO di Umaro Sissoko Embalo moom Ousmane Sonko direct news andi lañu ci ay leeral di leeral yu mu nangoo ci Umaro Sissoko Embalo muy leeral gisee mbaak Ousmane Sonko la ko sooke na mu demeek la ñu fa waxtaane Le Quotidien nañu moom Ousmane Sonko keroog ba mu taxawee naan régime bu Macky Sall dañuy discriminer joolaa yi ndekete booba fekkoon na mu porter plainte Sénégal ci cour pénal international ko Vox Populi mu dolli ci ne man damaa gisul lu tax Ousmane Sonko bëgg a jàpp ne moo ñu gën a doon ab Casamance ci diwaanu Touba Mbàkke Vox nee nañu fële yëkkate yooyu le kàddu kàdduy sàng bu tedd ba ci Touba di Sëriñ Muntaxa Mbàkke Basiru xalifa général des ci xët mu njëkk l'Observateur délégation Benno Bokk Yaakaar bi ko ziyaare ji woon ñoom la xamal ne cofeelam ci Macky Sall dafa gën a yokk fitna ci campagne électorale bi enquête dina kay nee nañu ñu 30 juin ba 30 août président Macky Sall it enquête nee nañu mi ngi dànkaafu képp kuy jëfandikoo ay nervi baa ngay yee fitna fitna joojee Walf Quotidien moom it mi ngi ragal mu jóox ci campagne bi campagne électorale bi jëm ci élection législative yi Sud Quotidien mi ngi ñuy wax ci xëtam mu njëkk ne tàmbali nañu ko keroog dimanche ci minuit waaye tabaski gi ñu nekkoon moo tax ñu bari ci askan wi tàlluñu ko woon INSIA assurance auto seen parfum yu neex yi di Saphir gamme Clarissime Home Choice Sénégal ak marque bi di Total Tools ak déodorant Malaysia Yumo ñoo leen